salaamaaleykum waa groupe As-Samadiyya maa ngi nuyu ñëpp di balaax ñëpp di sàkku ci mboolem ñu ne ci groupe bi ak ñu dégg ñu ànd fàttaliku Cheikh Abdoul Qadir sunu waajur di sunub soppe di kenn ci ñun doomu si Ahmadou Bamba ak soxna Aminatu Buso moom sëñ bu soobe sëñ bu soobe mi bokk soxna jaar lépp si Abdul Qadir mi gane àddina 1914 ca Ndaam Daarul Alim al Xabiir wuutu sëriñ bi 1989 génn àddina 1990 faj aajo yu bari jiite néew yu bari ñaane leen ak njéggal te ñëpp rafet njort ne yàlla jéggal leen taxaw njabootug Sëñ Tuubaa gépp képp ku fi sa waajur mas a jóge mooy wut sa ci yow ci di la taxaw ak di dalal sa xel bàyyi xel njabootug Sëñ Tuubaa gi nga xam ne ñooy doomi seexi ak seex di leen gane ji di leen seeti di siyaare mboolem bare bi ñu baax ñi ak fu ñu mën ne ci réew mi di jokk bokk gi bokk diine ji ak bokk deret ji doonoon sunni yu bu mag bi sunni yu bu mag bi ak suufi yu bu mag bi waaye doonoon murid saadiq bi wala ci maayal umami ji nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi da ko rafaatale woon sëriñ bi moom de bokk na ci ñi ko ko rafaatale xar kanam boo xam ne day fañ jàqare tabe lool rafet jikko lool mën a jaamu yàlla lool bëgg taalibe yi lool te jege leen waaye bëgg bokk yi bu mën leen a muñ waxtu wu ne mu di leen seeti di leen gane ji di leen nemmiku di jokk bokk gi bëgg alxuraan lool waaye fonk xasaay di sëñ Tuubaa yi lool ba tax na maa ngi sàkku ku ko mën a warlul ab kaamil jàngal ko ko wala nga am koo ko jàngloo te seral xolam nga def ko ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa jox ko gàddiya ku ko mënutit loo man ci ixlaas wala salaatu annabi nga def ko mu dem ci ruuxam gu tedd ga waaye duruskati xasida yi lu ñu mën ci xasida yi Sëñ Tuubaa yi ñu defal ko ndax ku bëggoon xasaayid Sëñ Tuubaa yi bokkoon na ci dogam bis bu ne am na xasida yu muy jàng waaye wakaana àqan nag moom may si naa wax ne bis bu ne dana ko jàng kon nag lu ko waaye mën a jàngal baax na waaye nañ ca boole wakaana àqan yu bari ñaan yàlla dolli ay leeram ak yërmandeem ci moom te taas na ci barkeem maa ngi ci soñi ñëpp ñëpp ñëpp sama waajuru bopp la sama soppe bopp la maa ngi ci ñaan dimbal ñëpp ñaanalal ma ko ci darajey Sëriñ Tuubaa yàlla dolli ay leeram te taas na ci barkeem jërë ngeen jëf